mais sachez que aujourd'hui on va vous présenter des lunettes de luxe, des bouteilles de luxe que vous pourrez emporter partout où vous allez pour mettre du chaud, du froid, à vous de voir. Et ensuite, ce qui est le plus important, ce qui me plaît le plus, en tout cas moi, dans cet événement, c'est qu'il y aura une vente aux enchères avec euh, des lunettes dont une partie du bénéfice seront euh, reversés à la Liska qui aide les femmes à lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Mais il est comme ça, il a un grand cœur. Sous vos applaudissements, pas Cher Diallo. Merci, chers amis, d'être là. Je suis très content de euh, vous voir. Euh, Taï, fille, je préfère parler Wolof euh, pour que nous comprenions. comprendre. Je suis très content Mangi, mangi Victoria Club alors Victoria Club xam ko man xamna lima dal déformation professionnelle parce que xamna sais bëgg na Viviane bëgg bo xamante tay tey moy ma duma len présenter Nomad Blue mais Victoria va nous présenter par contre j'aimerais ngeen tatchul moko bu baax Viviane j'aimerais aussi ngeen tatchul ma bu baax Wali Balago j'aimerais ngeen tàccul ma bu baax Aïda Samb ak borom këram j'aimerais ngeen tàccul ma bu baax Eva Tra ngeen tàccul ma bu baax Mimi Traoré actrice que tout le monde admire après di ngeen ma wax ku juum mais ñooñu rek defe naa su ma leen limee entre mes amis et mes collègues doon nañu exemple yéen ñi fi nekk ñëpp sama ay nit ngeen alors Nomad Blue histoire le beau xamante ni dafa Yag ak parce que bëri a un projet ma c'est ma carrière il y a très longtemps ñu xam ma ci télé xam ma ci rajo boobu nag ba tey buñ may ñaanal sax dañ ma naan yalla na la yàlla may sa télé bop lolu makoy magalé diko dundalé mais parallèlement en plus d'avoir cette passion vois le télé ak ci walu radio, dama mës bëgg lu rafet ay montre rafet luxe bu accessible tout à l'heure j'ai un ami qui m'a dit yow pauvre bu un goût de luxe nga nous ko lolu motax may lancé lo accessoire ak lepp lo nit mën na soxla ci mode xam montre xam xam maroquinerie xam lunettes bi nga xamee décidé na lancer l'idée de Nomad parce que le projet de bu existe depuis très longtemps Il y a ak suma benn jigéen bu tudd Dior Lo dit Lo di ko xamante dañu ko xam États-Unis ci walu mode xam ko ci maquillage mais waxtaan ci ak moom mu ànd ak man ci projet bi nga xamante projet nomade. à la base Nomad c'est le nom? après nous toll ci blue bi nomade man dama am esprit de partage am esprit nomade c'est-à-dire je voyage j'adore être partout Kep si Thiam mi nga xamanteni danaka sama classe de guerre la xamna na li may wax bi di liggéey ci télé on a toujours aimé di bokk fu ne ñu fa tout en gardant authenticité bi nga xamanteni mo nek ci ñun donc en gros qu'est-ce xamante ni ñëw na fi tay da nga ndax sama nit décidé lancer Liga nga xamante Blue on avait prévu de faire ça à travers un très grand lancement d'ici à le 5 décembre dans une très grande place où on invitera tout le monde donc pour ce soir en plus de vendre aux enchères bi ñu vais lancé ma première collection de lunettes de luxe Je suis ma takk je suis Nomad Blue Je bëgg ngeen tàcc bu baax sama père on fera d'autres accessoires mais pour ce soir damay wone li nga d'afo ni dafa jóge ci sama xol bi dem ci ay loxo ñu liggéeyal ma mu cette première collection de lunettes après les lunettes, il y aura évidemment d'autres accessoires. Et parmi ces accessoires Nomad Blue, on a choisi de vous présenter les bouteilles Nomad. Aujourd'hui, cookies sénégalais, cookies Kadri, cookies Nini N'ubarko, j'espère que l'image ma présentation donne mais je répète ce que je viens de dire je dois faire un très grand lancement mais tay pré-lancement bi je m'étais dit damay woolu sama ay nit donc vous donc mang vous leen di gërëm mënumaa lim ñep mais kenn ku ci nek mangi am ak yow relation bu particulière yéen yéen a njëkk am chance découvrir li nga xamante ni mooy projet Nomad Blue yéen ñi fi nek yéen am chance découvrir ma première collection de luxe ma première collection de lunettes de luxe et de bouteilles nomades Les nag bu ñu ba d'ici deux trois mois nous devons gagner génne collection mais précisez que ni édition limitée madame maanaam ku ci teelul am doo ci am ba ku ci am article yu Nomad Blue xam leen ni jënd une partie de moi. Donc merci encore d'être venu. Alors je voudrais vous demander d'applaudir encore une fois très très fort Pape Cher Gallo. Pape Cher, que j'ai l'habitude d'appeler le docteur honoris causa de la culture de l'animation. Il a dépassé sa génération. C'est quelqu'un qui inspire également les autres dans le cadre de sa profession. Pape Cher, je n'ai pas l'habitude de parler en superlatif. Je ne connais pas ça. Et quand j'ai entendu autre chose de Nomad Blue de Papcher, vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que la jeunesse sénégalaise est en train vraiment de promouvoir la souveraineté nationale à travers la culture. Merci Papcher, je ne vais pas être longue. Je veux simplement le titiller et lui dire que tous les jeudis soirs, c'est un rendez-vous traditionnel pour moi désormais, parce que c'est un moment de détente où J'oublie en quelques heures les soucis. Tout le monde a des soucis ici, mais c'est des moments pas. Tu peux même pas mesurer l'ampleur. Quelques heures où les gens oublient leurs soucis. Chacun a ici des soucis, mais merci. Et un clin d'œil à Oustas Modoufal. Alors, je vais changer de lunettes. Sans que de me connais, c'est Est-ce que Amna <laughs>

je suis fier de li nga xam ne ngay représenté et yow euh, nitu àjjana la yaa ngi procurer du plaisir alors que du sourire alors que des fois tu n'es même pas bien mais tu fais cet effort là quand tu mérites les ci àdduna bi yàlla na la yàlla defal jam sam la ndax yow sama rak nga sama xarit nga te xam nga kon nomade bu ci kaw ci kanam ci lu ba fierté ak mbété laa jëlee parole ci kanamu ko xamé tay mën naa ni Sénégal bu ñu nee Padros c'est grâce ak Pape Cheikh Diallo bu ñu xamee Padros c'est grâce à Pape Cheikh Diallo su ma bëggee métier bii ma nekk tey ba doon ci lima doon c'est grâce à Pape Cheikh Diallo nit ki njëkk a tàllal teg tu t'en? Cheikh et que bi mu defee que nekkul won lu yomb lu yomb parce que période boobu ku sañoon nek ci wetu pap Cheikh période bi nga xamé que radio, yombul télévision yombul mom dong moy nek Sénégal moy wax aduna bi yépp di dégg ni ma pendant deux ans ou trois ans qui ma formé ci loxom gens la ñi mu ci loxom bari Sénégal mais mën ci ak télévision mom moma ma ci loxom té waxul deful li wax leer na suis mi ngi taxaw ñun bu ñu wax ci yow mais xamal ni projet bi man en tant qu'animateur dina ko jël projet que ça soit une télévision muy radio. parce que loolu amagum ay millions ay milliards.

Euh, mën naa ne du ma pare tey ndax ku xam Pape xam ne Pape Pape Viviane la Viviane ku xam Viviane xam ne Viviane Pape la Pape nag Pape bu Sénégal la Pape bu àddina la nee la yow li ngay am li mu ci gën a tuuti ndax yow dangaa wàccoo ak ñëpp wàccoo nga ak artistes yi wàccoo nga ak animateurs yi wàccoo nga ak kep ku nek ci bir kërëm di sétane mba nga bëgg xam ni xew ci adina wàccoo nga ak moom paa ku gis ay ay bëñam ngeen ñëk gis xol bu rafet la yor du japp dara dara dara pa comme xalé man ngay nek ak mom bis bu ne ba mu jigi ñu naan damay seen sax ñu naan waye bu fekkee ne da ngeen sey ci suuf wala da ngeen nobalte ngeen wax ko <laughs> wala da ngeen def takku suuf mais Pape yàlla xam na dama ko jàppee comme ni ma jàppee Zeyna ak Philippe ndax mbëggeel moom defe naa ne sunu borom bi moo koy def ci xol te moom daf ma bëgg te yàlla tax mu bëgg ko te yàlla tax Pape nag ci kaw ca kanam li may wax rek ne la yow li ngay am mu ngi ci kanam te gisaboo dara euh, euh, kii sunu waa ji fi taxaw léegi euh, Padros li nga wax léegi dama koy firndeel. gars yi boulevard la war a xàll benn àll xoolal lu rëy tuddee ko Pape Cheikh Diallo ndax li mu fi def kenn du ko fi def macha allah Pape ca kaw bu ragal dara Sénégal a yeeg yow. ñaari kàddu la. maa ngi fay bu baax euh, bonsoir tout le monde di nuyu képp ku fi teew turam ak santam euh, di am mbégte bu mag a mag a mag euh, Pape Cheikh comme ni ñuy wax rek Pape Cheikh ñëpp la moo tax tey ñëpp teew fii man je me rappelle bien en 2012 bi may génne sama album Saraba euh, bu ko nit ñi xamé c'est grâce à Pape Cheikh donc tay su ma woowee invité ma invité sama borom kër sama jëkkër Abass Diadio ñu and man ak moom donc mbégte bu mak la ci am and ak sama jëkkër ñëw fekk si lancement bi di lancement bi mu def muy Nomade Blue di wax ñëpp sénégalais yëpp euh, Pape Cheikh Pape Cheikh ñëpp la Nomade Blue Nomade Blue ñëpp la donc ñu ngi wax ñëpp jàpp ci projet bi projet bi am solo bi nga xamantene ni Pape Cheikh mi ngi koy def merci beaucoup à tout le monde. merci beaucoup. Il n'y a pas de pleurs aujourd'hui. Hein? Elles sont belles. Oui, oui, c'est, c'est pas de la gnognotte, c'est beau. Et je disais que dañu tollu ci jamono bo xamné de dañuy contane de ñu euh kuy liggéey ci télé.

xol bu set wicc nga ko wussi ma xam ma xam bu doon woote pour woote rek woote Papa Cheikh du toll nii de waaye na ngeen jàpp yéen ñi fi nekk ku ci nit ci yéen dugg nga ci biir xolam xam Papa Cheikh ñu ñaan yàlla yàlla àggale ànd sam papa moo doon wax mu les oiseaux du même plumage se retrouvent toujours sur le même feuillage man ci sama dégg-dégg damay wax xanaa picc yi bokk couleur ñooy bokk benn garab bu ñuy fonk buñ la dama jënd chemise itam boo jógee di jënd euh, yére da ngay xool bi la sax bi la moom ngay jël kon andi tey noonu la moo ma ci Papa Cher, ndorteel la rek ñaan nga inspiré beaucoup de jeunes non, la jamono jamono bu ñu nekkee di wax ci leneen jubalal deugalal baaxalal muy suñu kañu ñëpp fi li euh, c'est-à-dire que chaque rencontre daf ñuy daf ñuy jàngal daf ñuy édifier fay leeral suñu suba ku fi nekkon tay amo bëgg-bëgg Pape Cheikh mi dina la jox bëgg-bëgg le beau jeune homme l'a dit néna dama la topando motax lu nit di fowé yalla ne dëgg ci yow ndax la ngay fowé ci ngay tabbi ji ku wax lépp nit ki daa ko catu

mais l'homme nekk le reflet de son milieu d'éducation nit ki nuñ ko yoree ci këram rek fu mu mënti dem loolu lay wane donc li ngeen wax ci Pape Cheikh lépp ci lu baax c'est juste que papa ak yaayam ñoo def ci ñoom ci moom benn yar ak benn teggin ak benn benn benn caractère boo xamante ni comme on a un papa policier moo forgé ci moom loolu donc euh, dañuy def lu dul ñaanal ko rek ñaanal ko yàlla lafal ko cat ñaanal ko yàlla projet bii mu sumb yàlla may ko ci ndam ndam lu weesu njortam ndax bu fekkee sa papa kontaan na ci yow sa yaay kontaan ci yow ñu lay ñaanal à tout moment loo jéng jéng jéng jéng doo daanu yàlla da lay taxaw ndax say wayjur kontaan nañ ci yow te ay wayjuram kontaan nañ ci moom ay wayjuram kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax a baax ñun ñii ñëw fi nag c'est toute la famille qui est là y'a mon grand frère qui est là ñun ñëpp ngi fi teew donc mënoon na xewle du gis ay mbokkam am na fi mais xewle na gis ay mbokkam taxawu ko donc ça dafa am lu muy wane ak lu muy firnde booy di la ñaanal yàlla lafal la cat yàlla sàmm la yàlla aar la li nga li nga yéene ci sa say wayjur ak say frères et sœurs di nuyu bu baax a baax Baye Cheikh di koy wax Pape Cheikh Diallo muy a eu à travailler ensemble muy nit boo xamante ni la intègre il est loyal ku ku bëgg li muy def la ku yàgg sopp la maa ngi nuyu ni ma fekk ñëpp sama ndaw la yëpp ku ci mel ni Vivi man je l'appelle tout le temps que yàlla dafa dogal maag moom dañu am affinité bu gaaw sista Aïda sama xarit la dañuy tooñante xam nga ñu bokk lu ñu dund maag moom mu xam ko non la basket ngeen jëf ah maag petite sœur la Zeyna mon ami Toumani Adama maa ngi nuyu ñëpp ku lim juum eh, lii tey vraiment dañ ko doon gis ci kaw bi ak feneen ak feneen ak soirée de gala yi donc lii lu am fun la am naa ci contentement pacifique ci bu baax ba baax a baax Pape Cheikh mérite plus que ça d' accord dañu bokk ci dëkk boo xamante ni nag dafa naqaree café xam nga mais bu woon loolu sax ko dañ koy gën a aj

Abbas merengue. <laughs> Merci beaucoup. Donc, première paire de lunettes blue adjugée à Abbas Diadio à 3 500 Donc, on va continuer vente aux enchères avec une deuxième paire de lunettes. Binga Khamantene, Binga Toudou, Black Clear. Comment xam nga lawbe lu mu la amu dem. ñun yàlla def ñun luñ laal day dem. moo tax bi muy ancien verre yi ma tudd 3 millions. C'est vrai yi 3 millions 500 na ko jaayee 8 millions. c'est normal. donc euh, là je commence mes enchères à. un million cinq cent ban njëriñ ngeen di jaay looba ñun suñ suñu maam jaay la ñun suñu torsion jaay incha allahu rabbi euh, nomade blue un million cinq cent pour nomade blue incha allah qui dit mieux parce que moi teg naa un million cinq cent. bu la cité pas je vais la cité. waaw waay maa la ko wax de ndax Pape Cheikh jaral na wax deux millions pour Waliya waay ah. ah. <laughs> dimbali leen ba ngeen jël waaye ñu ngi présenté deux millions daa waaye nga ni loo proposé wan ma wan ma wan ma ko waaye dañuy ko wér <laughs> non yow yaa def deux non moom bu ñuul bi lay xaar noonu bii waali bii la bëgg léegi ñëwal ñu enchaîner su ko su waali yi kaay comme bii ngay xaar nañ ko commencé ñu xaar bëri ba ci kanam waaye looy wax ci bi 5 millions. Alors, est-ce que... comme que Wally da koo bëgg nañu yéegal affaire bi nañ ko yéegal mais lui c'est une grande star mais nañ ko yéegal nañ yéegal affaire bi Abbas waaw affaire bi léegi Sénégal Gambie la Sénégal Gambie la ñaata ñaata 5 millions 200. waaye lu nekk yaa ko taal yaa ko xool ba gis ko nga bëgg ko bu nee mu dem. non il faut mu wax waaye. j'ai dit 7 7 7 voilà 7 millions kuyegala côté adjugé à 7 millions pour Seiko. Merci beaucoup de l'applaudir très très fort. Très beau geste une deuxième paire de lunettes. Euh, seront disponibles sur www.nomadblue.com. Vous pouvez dès à présent goûter site internet B, vous verrez ma première collection de lunettes de luxe. Maintenant, il y a aussi d'autres articles qui sont disponibles Oui ces bouteilles 24 heures rester chaud ou rester froid donc lunettes de qui pour une partie nous des ci jigéen ñi nga Nous des cancer du sein parce que octobre rose les lunettes. tout l'argent sera reversé à la LISCA les autres lunettes seront vendues pour cette soirée en édition limitée prix promotionnel Les muy jar du mes équipes vont faire soit vous venez ci nous avons les lunettes yi wax les et puis Jorlen puis c'est du luxe abordable Il y a 7 millions 5 millions c'était juste les premières paires et l'histoire retiendra que votre collection de lunettes les premières paires ont été vendues à 7 millions 5 millions que je Il y a une après mon fils je dis le parce que Nous nous avons koy période bu metti la coon sekk ñuy dund démb damay nettali ci télé bi dafa am bis ni yalwaan ak meeru koñ bi ñëw kër coon di ko gërëm coon xamul lu tax ñu koy gërëm ndekete wàlli sekk mooy def saa yu coon jëndee ravitaillement mu jël ceeb rek jiwli yi dem jox ko yalwaankat wàlli boo ko nee say rafet na sax dafay foog ñu def ko war a may c'est-à-dire booy wër nit ku généreux jàppal Wally Seck ndam yi mu am yeb xolam la suis ak ñu premier anniversaire Wali je m'en rappelle dama suis ni may teuk ay mbubu yu yubale. la yobale suma ma ci loge changé yi public bi dañuy Yalna suñu borom taxawu la ba waxuma disque d'or mais Grammy Awards yi yusu am yalna na ko am yàlla boole ma ak ko xamanteni nak mo gën ci man Omaro dama ko dégg mu ne lu wali wax mu ne wax bu weexee mu ne taw non la mel ci biir ci bi dama ko gis ci période bo xamanteni maa ngi doon gis mais ma jaral ko ay sacrifice yoo xamante bi d'habitude yaay rek moo koy defal doom Viviane mënuma jur 41 na laa am mais bët yi muy Philippe di ko xoolee Zeyna noonu la may xoolee tey dama dem ba chaque jour je dis aux gens lu waay defal Viviane bor bu mu koy jéem a fay la ñun amuñu sa fay man personnellement aw ma sa fay. su ma bëggee Zeyna bëgg leer na ma ni Zeyna day ñàkk su ma bëggee Philippe bëgg leer na ma ni Philippe day ñàkk ñoom tamit ñu xam ko Zeyna mii man maay magam Zeyna man maay kilifaam Adama Bey borom këram sama xarit la damay faral di nettali ne ñun ñett la woon man Zalmane Adama Bey dañ daan propagande Wally Seck fi ñu toll donc les deux premières lunettes benn bi ci pour ma mère benn bi c'est pour et moi personnellement man maa ko jënd C'est un petit topp nag cette paire de lunettes Sans que ngi leen une toute histoire ci période difficile la chalatli, lii période difficile la co initié ci période difficile la ma le booleeg ay nit yoo xamante ni grande marque yi nekk bitim réew fa faut la la laa toggee sama ay article Madame du ay fabrique aussi, ak fabrique Turquie pour ne pas faire de mauvaise pub mais genre c'est de la qualité et cette paire parmi les cinq bi ma jox sama pap jox sama yaay cette paire je l'achète notez ça c'est pour Viviane Chidid parce que Viviane man man damay toog ci télé bi sax nan ko bëggul Viviane bul ma sétane bu si ngeen gis animateur bu am fit def lolu toog ci télé topp artistes yëpp ay décembre di la seetaan nga naan nit ñi ko bëggul biir yaan ma sax seetaan yow yaa ma ko ji su ma la manoon tabaxal kër tabaxal la kër yéene bi li ma yéene sama ay waajur maa ngi parce que xam naa ne li nga yéene say doom nga ma yéene toujours damay tooñ Adama Bey ak Zeyna naan leen yéene sama sponsor officiel Adama Bey mii daf mu fekk ma toog fii mu ne ma woy fan la projet yi toll fan la effervescence toll parce que sama agence effervescence la toll tout tout plutôt ma ne mais Nomade Blue la bëgg njëkk lancé Adam Bey lancez le Nomad Nomade Blue effervescence mal lay jox local jox le bureau jox le plateau mal la fait pendant des années Adam Bey ku le defal lu baax donc, koy wax yàlla na le yàlla Viviane I love you so much merci mais elle est trop belle Whoa! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mélòó yẹn di kọ́tàkì. mais noonu leen ma gisee Pape dafa am lu am solo lu ma laaj ne ma loo yëg bi nga ko takkee mais dama bërëngu dama daanu. mbaa doo ma gaañ. mbaa di ñu baal. merci Viviane waaw. ok euh, noté Viviane jënd na bleu bi bijou bien bi est-ce que bleu bi la bi ban couleur la en chef bi jeex na waaw prix normal bleu bi pour 5 millions. En een pleurje voor 5 miljoen. Bureau pour 5 millions. yàlla na ci yàlla def jàmm ak yeneen ak yeneen topp ci lii dafa neex waaw lii dafa neex zéro to héro Zero to